man mooy yaakaar ni Sonko ce que je me dis il n'a pas aidé non seulement par ses parents mais par ses collaborateurs et ses proches euh, rawat n'a ko ñu mu bokkal ci parti politique bi. kenn mënu xex ak état état nek lo xamante ni mën nga xex ak mom. donc bo bëggee jot dara rek il faut nga def ndank nga ànd ak dal dem parce que fi mom mënoo wax lo xamante moy la parce que fi ku fi wax ñu tëj la donc du moy lool. Fi ko fi gis muy xëccoo ay nguur ni. xamal ne ceebam ceebam doy na ku bëgg a nekk président kay saay du re du nekk fii nii di ci xamal ne ñoom yor nañ ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo yorul nag ñun ñoo ciy sonn. ñëpp war nañ bokk ñëpp parce ko ñoom ñëpp boo xoolee benn objectif bi am mooy defar Sénégal waaw moo tax ñëpp war a bokk ñun Sénégal ñooy voté quoi bu ñu xoolee ku ñu dee ñu votel ko. nul n'est au-dessus des lois yaakaar na nit ku nekk. même bu doyo da nga gis ni dañ la bëgg a yaakar na li nga xamanté mo ñu teunk ñun yëpp bu do yaangi ci sa dëgg amo ci sik sak bo yaakar na war nga dem uyu li nga né ne euh, yow yaangi top lolu pour jité dom adama yoyu tay mën nañ la fal ci ginaaw loi yoyu yaakar war nga mëna respecté kon loi bobu bu fi yalla di xam. ñom war nañu mëna a waxtaan seen bir ba xam nañ lañuy mëna yoré suñu a képp ku bëgg a yor nguur gi ak képp koo xamante ne bëgg ngaa liggéey ci nguur gi ñoom war nañoo mën a toog waxtaan xaw trouver benn consensus boo xamante ne eh, benn problème du am ku falu baax na ah ku baax na réew mi dem kanam mais nekk fii nii jàppal ma diw jàppal fee yi yii yëpp jaru ko te nguur la rek fii benn nguur kese moo éternel muy nguuru yàlla c'est tout. lu xew ci dëkk bi moom euh, neexul kenn je pense donc euh, politiquement parler donc fii ku ci nekk am nga sa leader.

non la quoi jarul tax ñi di japp fi ni di té ñi di éliminer ñi wa ah, ku xamne dal yoon may na la nga bok war nga mëna bok bu dé waro bok tamit bo ñu xamne waro bok bokk rek ñoo xaaral beneen yoon bo waré bok bok jeune yi du ñu génnee si mbedd bi di xéx ak ñi ak nangam sangam ñom ñom ñom ñom ñom ñi nga xamantene ñom ñoy ndelu ndeyum mbili gi ah. xëy ñu ngi ci ci seen activité wu bopp du len yaqal dara ndax ñom am nañ li ñuy am ba pare kii fii koo fi gis muy xëccoo ay nguur nii xamal ne ceebam ceebam doy na ku bëgg a nekk président kay saay du nekk fii nii di kii xamal ne ñoom yor nañ ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo yorul nag ñun ñoo ciy sonn ndax comme bu par exemple bu manifestation amee nii ñiy dem liggéey ñii duñu mën a liggéey am na ñoo xamante ne tey bu ñu xëyul seen seen cin du niin to affaire yi dara bu amee di ñuy indi ay gàllankoor yoo xam ne mooy loolu buñ ñu jappalé won ci loolu dal dina am solo lool lool dekk bi dafa metti mo gën dugg ci gaal yi wala ngay mbokk di def yeneen ñun ñu dara lu dul suñu moto yi quoi buñ ñu jappalé won dal nguur gi buñ ñu jappalé won côté yoy dal dina am solo ci ñun lool lool lool lool lool dañuy daan suñu doole kese ñu kenn defu ñu dara loolu mom lu ñu la bu ci kanamu yàlla daal économie sénégal bi tay ni bon war na mën a en fait et je pense pas que ni euh, politique bi warna na tax ba économie bi di di di di vaquer suñu suñu suñuy programme comme ni ma ko waxé légui donc du euh dañuy ñaan rek mm, yalla yalla samal ñu dëkk bi gën ko sam tamit di ñaan ñëpp képp ko xamantane am nga ci sa walu comme Sénégal mu déllu ci mu nekkee woon comme on a l'habitude de le dire pays de la teranga donc loolu lañu soxla jaamu bi lañu soxla donc du je pense que ñom war nañu mëna xolaat xoolaat seen bopp en fait xolaat seen doxali man mo yaakaar naa ni Sonko ce que je me dis il n'a pas aidé non seulement par ses parents mais par ses collaborateurs et ses proches euh, rawat n'a ko ñu mu bokkal ci parti politique bi gis naa ni euh, entouré C'est ci inexpérience qui ci tey que parce que bu doon expérimenté ñoo xamante ne qu'il na lan état quelle est la force de l'état dinañ ko digal

ñi ci bëree dinañ rocceeku si loolu. te koo ci gis bu yii nii amee doo ko gis sur le terrain bu manifestation amee doo gis benn kii kii boo xamante ni dina taxaw yor xeeram anañu dëkk bi daal saa yi mu ngi noonu quoi en en vrai dire. waaw message bi may lancé mooy boobu président laa koy lancé mu ñu jàppale booy yi surtout jeunes yi comme instant bii booy yaa ngi dugg gaal yi di dem parce que dëkk bi dafa dëgër dafa met trop waaw ñu jàppale jeunes ci emploi yi. ñu liggéey waa jeunes yi aussi ñoom ñu xam ne ci dëkk bi lañ bokk war nañ mën liggéey fii nii waa tekk fi waa en plus aussi ñoom ñu wut métier quoi parce que métier moo wóor